li ma kontaan ci moom. nee na li mu kontaan ci président Idrissa moom soxna Amira. mosuma ko gis nag. nee na ko gis nag. Eh, su daan ziar góor gi na waaye su daan ziar góor ma daan ko dégg. nee na mu daan ko dégg. yàlla dogal na li ma li ma neex ci moom. nee na yàlla dogal na li ko neex ci président Idrissa. mooy diine bi. nee na mooy diine bi. te diine mooy fondement lépp. te nee na nit. buy wax rek. mu waxee indi aaya. nee xaw a jafe ah. nee na loolu moo xaw a jafe. waaw loolu daal moom moo ma daal. nee na loolu daal moo ko jaaxal ci sa nee na loolu bu waxee rek indi aaya. te yàlla mi ngi ànd ak ñooñu ah.